ñu ñu amoon mbégte da euh, teewalaat yeneen ñoo xam ne ay taalibe Cheikh lañ yoo xam ne kenn dootu leen présenté fii ci Argentine ak li ko wër muy ñoo xam ne bu bis bi taxawee dañuy bàyyi seen jot bàyyi seen xaalis bàyyi seen nelaw nga xam ne bis seen loolu lépp dootu ko fekkee ñu teew koo xam ne nii mooy ci taalibe Cheikh yi nga xam ne moom dama koy woowee l'infatigable waaw jëwriñ ñu ñu jox la suñu micro dëkkal la nga jàngatal ñu bis bi lan ngay sentir ci euh, dëkk bu mel ne Argentine nga xam ne diine def fi néew doole dëkk mel ne Argentine nga xam ne lépp luy charia ak ay yooyu dafiy néew doole ndax dañu nekk dëkk boo xam ne dëkku àtte la gëmuñu dara ngeen teewal fii daayira Cheikh Al Abdou Tidiane nga xam ne yéen ngi teewal diine bisu mawlud lan lay lan ngay yëg boo taxawee ci dëkk mel ne Argentine di ko fi teewal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, xam naa ñu baal ma rek baat dafa xaw a dafa xaw a dee moom lépp rek ay yiw la di kontaan baa ci xaj Alioune Badara moom suñu xarit la ak góor mi yor caméra bi di ñu jël suñu lépp la tabarakallah mu mel ni gàmm moom jur wax ji di bari ndax mawlidu rasul sallallahu alayhi wasallam boo ko déggee mooy bisu guddi juddu yoon ci Muhammad temps bi daf ñu daan fekk Sénégal nu ko dund beneen ci yeneen mbir kon tey bu ñu ñëwee ba ci réew mu lislaam mangi ci El Hadj Malick liggéeyal yàlla ngeen jox moom micro Touba TV Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci nasara lu kenn dajul kon mu mel ne suñu mag ni liggéeyal nañu waaye ginnaaw bi ñu liggéeyalee nag sëñ Bamba dafa woo ci yonent bi ne ñëw leen ñu màggal guddi gën ci Muhammad mm. comprendre nga ñëw leen ñu màggal bis bii nga xam ne boobu su màggal lu ci jublu màggal bi su màggalu Touba waaye nag jagleel ko Seydina Muhammad waaye Seydi Hadji Malick moom li gaañu naan sama kat da nga àgg ba wéeru moom dafa sës moom dafa ñëw guddi yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne fii laa koy gu fii laa koy gàmmoo gàmm gi lu jublu Maodo mu ne man kat damaa bëgg ñëw ànd bernde waaye nag wax ko rasul sallallahu alayhi wasallam waaw ndax wax ko rasul sallallahu alayhi wasallam ndax kat moom rek moo dégg maanaam la rijaalu maratiban te football dënn moom rasulullah kon kenn ku déggoon leneen nga fëgg sa dënn kon nag ñun bu ñu amee ay mag ñu baax jóge ci suufu Sénégal bokk tubaa bokk Tivaouane bokk Ndiassane bokk Thiénaba kon tey bu ñu ñëwee di màggal guddi yéen ci Yàlla Muhammad yéen waa Touba TV ngeen dañ ciy bëgg bu baax aajale suñu xool seet na ñu ngi kontaan seen seen seen teewaay wax dëgg yàlla dëgg nañ baax vraiment muy lu am solo mais ñu gis biir bernde yi ñu xool xam ne bernde yi doy na macha allah vraiment taalibe seex yi booloo nañu nekk benn joxe benn rek loolu lu mu lay def lan ngeen di sentir ak xam naa nag seen xaalis du ko fekkee waaye nag taalibe Cheikh moom berndeel ay mbokk taalibe Cheikh am amul amul prix vraiment ñu sant leen ci di leen laaj euh, fray métti na na mais cant gi lan lay demee. baarakallaahu baarakallaahu waa Alioune Badara laaj nga lu am solo boo gisee ni mouvement bi demee nga gis ni yëf yëpp mu ngi yëngatu coow leeg liggéey beeg dem beeg ñëw bi nga xam ne tey Cheikh El Hadj Malick kenn la ndax imam Malick ba naan ron xam Seydina Mouhamed yi boo guddi la min mulikin malikin fi jamiil funuun tey moom la ñu teewal mooy maam Cheikh Sidou Hadji Malick waaw action daara ji bi nga laaj góor a action moom jeexal na wax ci français action mooy actionné actionné ñu am ñu jëddi suñu kilifa ñu ak président Abdou Dieng di nuyu baax suñu sëriñ sëñ euh, sëñ Habib Sibou sëriñ Mansour ndax moo jox tur boobu ba léegi nag ñu nekk ci du sac du yore bi ñu sol du badge bi waaye di liggéey ci xol di liggéeyal yàlla di liggéeyal Seydina Muhammad salaamaaleykum wa rahmatullah